waaw kontaan rek xam nga sant yàlla bu baax euh, yàlla yu bëri nañu incha kontaan rek xam nga yàggoon naa ko bëgg def mais yàlla lu mu dogal rek du am xam nga tey teel a su sant yàlla dugal naa suma premier bi yàlla na yu bari topp ko incha allah. waaw um, um, ñu ngi xamante xam nga équipe nationale mel club instant ñu ngi gën xamante jour ak coach bi aussi soo saa yi soobee yàlla euh, match yi ñëw dinañ def tout gagné pour mu a dem si kan bi ñëw incha allah.